suñuy jaar jaar daal dañu seen YouTube bu bësal na ko station bi nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. rabbil alamin mbokki jullit yi ñoo ngi sant. di gërëm ki nga xam ne moo nu def tey li nu doon ndax lu yëngu lu nekk li ko yëngal moo ko ëpp doole kon li yëngal lii yépp loolu mooy doole ji kon sang bi yàgg fi lool te wér Cheikh Souleymane na fi yàgg te moom mi nga xam ne lu jiit njaaga moom mooy njaag sant ki nga xam ne moom mooy baabul xaarifiina billaahi di sang ñaan mu sotti ci jotaay bi di Cheikh Ibra Mbodj moom mi nga xam ne ku yaa dënn la koo xam ne ku am hikma la koo xam ne ku mën a jàngale la ndax lii nii ca njëlbeen moo ñu doon wax ne nii la du nii nii la du nii nii la kenn ku ci nekk ci ñun ñi nga xamante ne tey yàlla boole nañu ci barab bi kon di delloo sant rek ñi nga xam ne ñoom ñooy parrain bés bii lu ci mel ni suma jëwrin moom mi nga xam ne ci moom laa njëkk a déggee kàddu yàlla muy Cheikh Ahmed Dame ak Cheikh Pape Ndiaye mi nga xam ne ñoom it ak Cheikh Al Azan ñii dañoo nekkoon ci bërëb boo xam ne miinante lool di jetaay ba nga xam ne am na ay lien yu ci juddu kon nekkul rekk ne ay mbokk lañ ci yàlla ndax bu xasee tudd mbokk gi ci yàlla rekk yeneen yépp day xas daanu waaye danoo bokk yàlla ba noppi nekk ay ay xarit kon nag yal na yàlla yokk taxawaay bi wéral seeni cër yàggal leen fi lool ba li ngeen naal ci pays Cheikh Moussa bi yàlla defal leen ci lu kawe seen njort sant ak ngërëm it ñeel na sunu yaayu daara yi nekk ci ginnaaw toog ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ par marraine bis bi muy sunu yaay Mariama Ba moom mi nga xam ne tey wàcc na génn na ay néegam génne lépp loo xam ne yaakaar na ni bu ko defee nit ñi bëgg rek tey def na ko tey waaye da nga xam ne yàlla rek ngay jëfal te kuy jëfal yàlla moom da nga xam ni sa bopp ci nga nekk ak suñu yaay mi nga xam ne moom mooy way juru jibikan muy yaasin gëy moomit mu jugee koo ci gox yu fasantikoo ñëw ci barab bi te am lum mënoon a def ak ci lum mënoon a nekk mu dagg loolu lépp ngir bis bile kon yéen it cant ak ngërëm ñeel na leen ci seen itte ak seen pas-pas waaye ñi nga xam ne sama mbokki cheikh dama leen di lim waaw ki nga xam ne mooy Babacar Sène sant ak ngërëm ñeel na la yow mi nga xam ne fa nga jóge koo sori na lool yaa nga jóge ci dëkk bu ñuy wax Pobe yaa nga àndal gis nañ sa taxawaay yal na yàlla fay la yiw ki nga xam ne mooy Cheikh Pape Fall moom it mbir mi da koo def comme mbiram rek téye ko jamono bu nekk mu ñëw teew waxtaan fi waxtaan wu facha macha allah sant ak ngërëm ñeel na la. Serigne Gueye moom it ma nga dëkk ba Sébikotane nga xam ne fum dem rek faaw mu toog ba bët set mu door a mën barabam kon sant ak ngërëm na la ki nga xam ne moom mooy Moussa Sarr nek it ci moom it sant ak ngërëm ñeel na ko ki nga xam ne moom la ñuy wax Cheikh Saliou juuf sant ak ngërëm ñeel na la ki nga xam ne Cheikh Idrissa juuf Cheikh Idrissa Gueye sant ak ngërëm ñeel na la ki nga xam ne mooy Cheikh Yaa Awa juuf sant ak ngërëm ñeel na ko ak képp ku ànd ak moom Cheikh lamin seen kazalika sama yaay sama yaayu bopp meer Ndey Xaadim ak suma yaay ñooñu toog ci ginnaaw sant ak ngërëm ñeel na leen ñu am fi nag ay gan yoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo ba Thiès muy maire Chimère jaw mii daa tëj këram ànd ak ay njabootam bàyyi lépp ne faw mu fekkee bis bi nekk ku baax ku tabe koo xam ne jamono buñ demee këram dafa ñuy wax ni kër gi seen kër la ak tout tànkam yee ndax tout tànkam bële moo ñëw yàlla def xam-xam bi dugg ci moom mu dem ca kër ga waxtaanal leen ko waaye ñoom ñu nekk ñu fulaw ñu faydaw ñu pasteefu tëj seen kër ñëw ci bisub sant yàlla bi waaye da xam ne yàlla moom ku ko lebal ker mu fay la guddi kon nag sant ak ngërëm ñeel na la ñeel na leen Cheikh Nuuru gis nañ taxawaay bi kontaan kontaan nañ ci bu wér kontaan kontaan nañ ci ci lu amut àpp ki nga xam ne mooy Cheikh Thiendella Tine moom it gis nañ taxawaay bi mention special kuréelu Zikrullah ki nga xam ne moom jamono bu nekk bu ma ko xoolee rek maanaam dafa am lu muy def ci man daal waaw ndax muy jëmm jooju wow, mom moom sama waay la sama nit la ak Etienne momu yal yalla yàlla yokk seen taxawaay mbooloo mi képp koo xam ne ñëw na ci barab bi ak fépp fu mu ko waaw ñu ni da nga dul matal waaw alaaji jibi sëy ñoo ngi sant tey gërëm jëwrin cuun ñoo ngi sant tey gërëm bu wér ak suma xarit suma nit koo xam ne moom sama nitu bopp la ñu koy wax Cheikh Mbacke Diop moom ma nga géejawaay waaye yable na yabal na soxnaam ak benn jëwrinam jaaji mention spéciale yow it ci bëccëg ba tey yaa ngi fi ci conférence bi booboog tey ak góor yàlla yi nga xam ne taxawe nañ plateau yi ba mu mat waaye nañu xam ne képp koo xam ne jaar na fi nitu yàlla jaaroon te nitu yàlla yi topp wala yi niy roy dafa am lu ñu amoon ci yàlla kon topp leen roy leen war na ndax sëñ Bamba da koo wax ci yuqa mu ne maa ngi man de maa ngi jooy góor yàlla yi ndax asamaan mu ngi leen di jooy suuf jooy na leen waaye li tax loolee am mooy dafa am ñoo xam ne dañ fee am njëriñ nit dafa am foo xam ne bu fa dëggee tànkam day am njëriñ nit fan lay dëgg tànkam ba am njëriñ mooy ci njëriñu yàlla ndax yàlla dafa wax ne wa ma xalatat jinna wal insa illa liyahbudun bindu ma nit ak jinne waaye jaamu tax mu bind leen waaye mbind moomu amut kenn koo xam ne wàcc nga ci kaw suuf te yàlla boolewul ak ku la war a jàngal bind moom da koy daj mbaa nga ñàkk koo daj da nga cay yegg mbaa nga ñàkk cay yegg waaye liggéey bii nga xam ne am na nangeen xam ne ñun ñépp ñi nga xam ne lii fekke nañ ko nañ xam ne am nañ ci yool waaye am nañ ci cër waa ansaaru diin bañ ñu joxee bis bi ba sang ñaan wàccee bis bi ba tey bàyyi nañ seeni itte bàyyi nañ seeni pas-pas seeni góor ak seeni jigéen lépp lu ngeen amoon ngeen miraas ko waaye na ngeen xam ne seen bopp rek ci ngeen nekk defal leen kenn ku dul mooy seen bopp defal yàlla mooy defal sa bopp na ngeen xool ba xam da ngeen a gon a goro yàlla am déet waaye li fi saafara li nga xamante ne mooy saafara tawati xol yi ak tawati jëmm yi ci loxob yàlla bi la nekk waaye yàlla moomu am gim ko am ak mën gim ko mën ak xam gim ko xam ñoom ko koy dagaan ba képp ku fi jóge sa saafaray xol sa tawati xol ak sa tawati jëmm yàlla ko yàlla saafara zaahiran wa baatinan taw anan wa kar anan ci bépp feeñuwaay boo xam ne jafe-jafe la woon jaam ràngoo woon ko rek yàlla yàlla ruggi loola ba dootu ko yëg ki tax ñu samp lii moom day am na ko mën na ko waaye nag nan ni ko ñoo ngi nii amuñu mënuñu xamuñu waaye moom mi xam te man te am na feeñal cër yooyu tam doon moom kot moom dong te sañ ko kon nag ñoo ngi tuub tey jégglu dañ xam ne liñ ci yittewoo woon rek mooy kenn ku ci ne ñu fekk la fa nga nekk taf la suñu kaw def la suñu biir ndax yéen ñépp man ngeen waaye kenn ku ci ne man la nangeen na ko xam ndax kontaan fa kontaan yem kontaane naa fa bëgg fa bëgg yem bëgg naa fa kon nag yal na yàlla barkeel la ca des yal na yàlla yokk leen may leen ndam biir ak biti li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defal bi jaa ilaa ilaha illallah barke Cheikh Moussa ci darajey sang ñaan waaw kon nag ñaay jox ngir mi mu ngeen wéyale suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon dañoo bañoon dana wax ni su ko xaritoon ko am. abonné wu seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque